muhammadun muhammadun muhammadun مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باق داما مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باق داما حمد وشكر للذي أداما على الذي يعبده إنعاما محمد يهيبنا قاما بما يسرنا فلن نلاما محمد أنا لنا المرامة قلنا له الصلاة والسلام دعا الذي قاد لنا إكراما توجيهنا له رضا أغلاما من بما يخلد احتراما ربي علينا وهب الكلام حسنا كتابا وجعل كراما لهبنا ولا نرى لآما محمد أعطيت عظاما كل إلى جناتنا إقداما محمد أوصل لعظاما هدية لا تهتوي اقتداما دفع من لي حبب الأناما إلى سواي مكره دواما مع النبي قبل ذا استقامة هني ولا يرد لي غراما هجبني أما وانتقاما وما هوى فسادا أو إجراما من به اللين وجاء الحرام إلى سواي وبقاء إراما من بما كل بي قساما عن كل ما ساء أرى أحكاما ديني حب الله حبا داما وحب من به المنى أداما ديني حب الله حبا داما وحب من به المنى أداما ديني يحب الله حبا داما وحب من به المنى أداما
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi dellu di santaat yàlla sunu borom diine yuhibbullaahi hubban daama loolu ko sëriñ baaxe sama diine mooy bëgg yàlla xëy na danañ lott lool ca moom na mu waxee ak nam dégge ak nam yëge ñu waxee ko noona waaye nag de dees na ko sañ a roy laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun hasana waaye diine lépp cofeel la cofeel gi gu jëm ci yàlla yàlla li mu am lépp it ci jaam la koy jaarale wa man yuti'i rasuula faqad ataaha Allah ku topp ndaw li topp nga ka ko yónni kon cofeel googi moo nu yóbbu ci lépp nit lu mu bëgg rek am na nu mu cay doxe am na nu mu cay waxe am na nu mu cay jëfe nu mu cay melawoo yàlla nay dëgg ci noonu noo ngi gën a yeesal sunu cant di ko jëmale ci moom yàlla sunu borom cant koo xam ne am na tàmbali de waaye amut yam ba keroog àdduna di tukki ndax ci biir cant gi nga koy cant da nga ciy yëg ay dolleen yooyu yoo ko mën a waxtaanee kenn da nga koy yëg rek di ko dund yàlla bu gis suñu bopp yàlla bu gis suñu jëf yàlla dañ koy bëgg moom rek yàlla te di ko dund moom rek yàlla di ko tuubal nag ci mbooleem suñuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf te di ko ñaan mu nangul suñu yiw canam toll te bañ a xool li nga xamante ni danay sabab yàqu jëf te léeg-léeg mu di nu gaar di ñaan xéwalam ak muccam yàlla moom dañ ci jaamam tey ndawam li nga xamante ni moom la yónni diine lislaam te digal nu topp ko di sant lool ak a ñaanal lool ak fa seeni liggéeyal lool jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana seyxina alxadimi nga xam ne moo nu woo ci bis bii muy mbég mu yaatu tey mbégum bindéef yi yépp ngeen ñu di ko ci sant la sunu borom subhaanahu wa taala ni ma ko waxee ci suba kër du ndaanu kate du dara sëriñ bi képp koo xamante ni xasida yi mu bind ci géej gi yaa ngi koy jàng te di ko teewlu te mbir mum doon ngay jël sa jëmmu teg fa ca la nga ca attan bu so boobaa day boo ne Sëriñ Tuuba amul moroom dees na ko mën a dégg ci ku dégg fi nga dégg ku xam fi nga xame du doon ak ëppal du doon ak xaabaabal fi mu aw metti na de ba foo ko takk rek weesu na ko tawxiid bu mat sëkk ak tawakkul bu mat sëkk la ci boole it ndax ni may waxee waxtu ne nit ñaari lu mu jonjoolut du ko mën a jàpp du ko mën a xam buñ koy ñett li ci biti lu sori loo ci sax bàyyi sa xel waaye juróom-ñaari at yu toftal ay weer ñu génnale sa kër soo ko doon misaal ci kër gii rek ki fi dëkk bàyyi fi ak njabootam muy say bokki taalibe muy say doom muy say soxna jëmale it foo xamut te xamoo fa kenn ca ñi nga àndal ñépp di ay kàccoor xam ni ñuy toroxale doomu aadama loolu dong la ñuy jàngal te loolu dong la ñuy jëflante yow it te fa ngay nekk miinoo climat bi miinoo environnement bi te lu ne nga fa luy lore nga dund fa boo ko bëggoon a dund tey am na ñooñ ku leen bëggoon a fanaanloo ci néeg képp ci tàngoor wii te ventilateur nekku fa duñ nelaw ba asamaan set ngir yoo aku tàngoor te yaay tëj sa bopp kat di tujj sa bopp nit day xalaat di settantal loolu mooy tax nga mën a xam kii fi mu jaar ba am lim am ba tey nag fi mu ne am na ñooñ dañoo jàpp ni ay pexe la rek dañuy wax ne mag ñi dañoo nax nit ñi kenn naxut kenn fii am nañu li ñu fi yëpp buñ ko waxee musiba mën naa am ci ñenn ñi amut ak dégg ca loola te fekk luñ xam la te moo ne ñi ñi jàppe loolu yi leneen ka ñuy sukkandiku ku mën a doon ku mën a doon rek kooku jaamub yàlla ni kii doone jaamub yàlla ndax fi mu ne dafa am lu am solo akub sew sew bopp li ñuy wax ci yàlla lépp lépp lépp ab jaam moo ne nu yàlla nee na nu jàpp ko nangu ko de yàlla néewu nu de gis ngeen alxuraan li muy màgg màgg ci nun jullit ñi li muy kawe kawe kawe ci nun jullit ñi nga xam ne mooy sun delluwaay nun jullit ñi yàlla waxuñu ko déedéet déglu leen fi may waxee bu baax nag waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne nu yàlla nee na wax ko ci làmmiñ bi mu nàmp di xaraab ne waxi suñu borom xaraab la mu wax na ko nu bind ko jàpp ko ñu di ko jox jolante ba mu agsi ci nun waaye kenn ci nun ñi yàlla néewu la maani maani diw mi nangam moom moo ne nu yàlla nee na waaye amut kenn ku yàlla ni kii maa ne ko nangam loo mën di indi ci alxuraan rek bala ko koy wax naan yàlla nee na fekk na ci làmmiñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jaare dikk ci yow ba noppi loolu na leer ci képp kuy dox kon ab jaamub yàlla moo ne yàlla nee na ma te boo liggéey bu beneen jaam ne yàlla nee na ma kat mu rëy ca nit na waaye déedéet yàlla ba tey mi ngi wax ak mi ngi wax ak waxuma la jaam jaamub yàlla boo xam ne bindeefum yàlla la waaye yàlla du moo ne wax yu na yamb moo ne wax yu na lu dul yamb loolu coobaree sunu borom la nit weddi lu doy waar la lu yéeme la ndax fi mu ne li may waxtaane waxtu nit ku ne yaakaar rek la am ci lu bari waaye dund dëgg lu jafe la kooku lu jafe la dund dëgg lu jafe jafe jafe la kon sëriñ bi loolu mu daj ci digganteem ak boromam te li may wax it waxuma ko ngiru sant waxuma ko it ngir doon ci ab taalibe waxuma ko it ngir doon ci mbokk dama ko wax ngir jëmm yàlla rek setantal koy ne man de léeg-léeg danay génn fii ak feneen fu mu man di doon danaa gis dara dal nit dama koy natt ci suñu bopp sama bopp ba dana ma tee lekk téemaa nelaw téemaa naan yàlla seere na ko ci sama mbokkum jaam rek bu ma gis dara gaar ma nii donc dama ci xalaat di ci xalaat fi may dellu siwaate daal mooy coobareem ji nga xamante ni rek ci lay doxal moom yàlla te kenn du ko laaj lu tax nga def nangam moo may dellu si ci ak dal kon Serigne Touba Xadimal Moustapha foofu mu jaar jaare fa tawxiid jaare fa tawakkul suñ borom wuyu ko sëriñ bi am na lool caaxaan mayu ko kenn ay fo mayu ko kenn mukk ci àdduna pexe mayu ko kenn yàlla mooy feeñu ci jaamam nu mu ko nu mu ko soobe te sëriñ bi mboolem lu mu bind rek lu suñ borom def la ba noppi lu doon ko bind lu mu waxit lu suñ borom def la ba noppi mu doon koo wax kon bisam bii bu ñu fi bokkee daje xéewalenu yaatu yii nga xamante ni xet li ko jaam ñi la yërmande jaam ñi la ngëneelal jaam ñi la jàpp dalug jaam ñi la war nañ ko dund war nañ koo xam muy may ko sunu borom defal ñëpp ñu ngi koy waxtaane waaye may yooyu yi ñu xam ni amu ko ci fo wala ci caaxaan wala ci tëdd di nelaw ci wéetal yàlla ci la ko amee ñu dellu ci wéetal yàlla nooyu tamit di ko ci roy ci wakkiilu ci yàlla ci la ko amee ñun ñëpp it ñu maase delluwaat ci wakkiilu ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala teg te di ko sant ba cant ko doyutu ko ndax bi mu muñee kat wéetal yàlla wakkiilu ci yàlla muñ muñ bu rafet yemut ci muñ waaye rebaa la ko sukkur wa ridwaan min nii wa saahibi xam nga sukkur ak rida ci gërëm li la yàlla def nga xam ne weesu nga muñ yow marte ba muñ weesu nga ko waaye da ngaa àgg ci li yàlla def ci yow daf laa neex daf laa neex yàlla tegoon na lu mitti bu kutal yàlla teg na lu mitti nga di ko jàmbat di ko jàmbat di ko jàmbat ba xamutoo foo koy jàmbat waxuma laa muñ koo ko sax muñut sax kuy muñ di jàmbat as-sabru inda satmatil ula waaye yàlla teg la natt bu doy nii ñu wax sa waa kër say kër gent boo ko doon wax sa njaboot te saaro soo ko doon wax te it fi mu ne nii réseaux sociaux mel booba la nit ña toll woon ña nag boo dee boobu ku toppoon sëriñ bi say bokk nga tës say bokk ba ànd ak moom liñ la doon wax a ngi nii ngay dégg nag sa waa ji sob na ba tubaab yi jàpp nañ ko sànq na ay mbiram jeex na ñàkk na ñi ñi woyof bopp gëm la ni ngay wax topp leen ca loola ñi dëgër xam ne liñ jàpp de mooy dëgg liy natt la buy jàll rek ak luy yëkkati ak luy dolli fañ ne woon ñu ne fa beneen sëriñ bu booleen ñu topp ca gannaawam toppin wu rafet muy maam Cerno Ibra Faati moom dénkoon jabar gépp gannaawam te xat demul bu del see àgg na ci ne ko ndax su ma soo soo demoon ma toog nii nga wattoon lépp ba lépp nga tegaat ko ci sama loxo dinaa ko mën a nii nga ko defee loolu mooy gor loolu mooy gore kon fi mu jaar ci gërëm ci sant ba romb martaba muñ waaye lépp lu yàlla def rek dogal ci moom rek neex na ko ba mu jural ko xéewal yi yëpp ba ko ne di ko dund nañ góorgóorlu nag ci di ko roy roy bi ñu tàmbalee ko képp ku ñu tudd ci di ko tudd ak képp koo xam ne ñu ngi lay tudd di tudd ko àndoon ak moom ba mu yar ko ci wàllu ruux ba jox ko ndigal mu yare ci wàllu ruux ku ci ne war ngaa fet yi waat sax laxasaay ci ñooñu ñii ci jaboot gi rawatina ci bis bu mel nii ba fa nga ne ku fa teew dolli ko ci digganteem ak boromam tawxid dolli ko ci digganteem ak borom tawkul dolli ko ci digganteem ak borom jikko ci rafet dolli ko ci digganteem ay moromam jëflante lu rafet waxam ne su dollee dana ko mën a yóbbaale dolli ko it ci jiital ya adduna ci àllaaxira jiital àllaaxira ci adduna loolu mooy li war a am kon bu ñu santee sëriñ bi xam ne fi mu jaar muy dafa am lu nu war mooy di ko roy ci wéetal yàlla di ko roy ci wakiilu ci yàlla di ko roy ci sant yàlla di ko roy ci muñ xam ni nit ki am na foofu bala nga caa àgg dana am foo jaar am xasibtumu an tadxula aljannata wa lama yatikum masalu lazina xalaw min qablikum massatuhum albaxsaau wa darraau wa sulsilu xata yaqulu rasulu walladina amanu maahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib loola metti war na de tey jii bu dara xewoon fii bañ naan fan la ñuy muccanoon fii ne da am na ñooñ dañ naan dëggal nañu waaye duñ waxuñu dëgg ñu ci bari ñoo mën a yem bis bu luy firndeel ak dëggal teg tegee fi seen kanam rek ñu xam ne lañ wax du dëgg tey jii ndax ñun ñi tey bu ñu ay nit cercle woon fii yu ñu nekk ci baas bii yor ay ngànnaay yu ñu ëpp doole fu taxaw fee leen jàpp kenn na faset ren ni ba leen seen pas-pas yi nan la ñuy def war nañoo natt suñu bopp ba xam buñ àggoon foofu daleen jàllam duñ jàll bakkan laa wax de te am na ñooñu tey fii ne boo doon liggéey bi liggéey ba liggéey ba di sotti seen dërëm du ca dem doo leen doo leen tawoo ba wiis wala kenn ku ci nekk yittee boppam moo koy gënal loola te moo ne xee la ñu war a egg bu ñu doon teg put ci suñu baaka di ñu rend yi du tey fi ñu ne ci yàlla ñu nekk fa te dal duñ ca mën a jëlee adduna histoire bu jàllee lu bari day rafetaat fii ne boo demee làmbaay loolu ngay dégg ñu naan sëriñ Momar Mané ko tontu boobaa ne ko da ngay kàcc dañuy dem Touba fool li la tey tekki sa ndomba tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk ak a metti woon ba muy wax loola yàlla ko tawfeexal ak dëggu ak dëggal ci sëñ Touba rek waaye bari woon na ay nawleen yu mbokkaloon sëriñ bi ñoo xam ne ba buur ba taxawee ay ndënd lañu teg ak ay leen ak njaram làmbaay njaram làmbaay kat boo ko déggee mooy soow mu ñu rax loolu loolu di miir loo fat leen ci ngurgal di bocc ay gobar ak ay ràbb ay gobar mooy paaka ak xej te gàtt dong la reen di fee ca gannaaw de téye paaka mi diw dikkal da ngay gëm wala da ngay weddi nga ne ah man kat ba nga ànd ak moom saa bakkan tëxutoon génn ca la nga waxoon ba set wécc te lii ma leen di wax nii ma leen ko waxee ñu ne demee ñu tëggal la nga fecc naan ca njar ma ne mot dellu sa kër toog ñooñu dootu leen déggati waaye ñoom ñu dëggaloon tey ji ñoom la ñuy dégg seen jabar moom la ñuy dégg lislaam yi noonu dong la meloon saxaaba yi lu ne daj nañ ko ci diine lu ne daj nañ ko ci diine lu ne daj nañ ko ci diine génn nañ leen seeni kër nangu nañ seeni soxna rey nañ leen génne fañ dëkk kenn jënd diwut ak ñoom kenn jaay diwut ñoom tëj nañ leen embargo nañ leen lu ne def nañ leen ko ber leen ndax tey fii ne nun ñi kenn ci nun rek attan na képp ñu lay ŋàññi ca koñ bëgg a dëkk ngir ni diw nga àndal nga yenn ko di dem bari na ñooñu ëttaluñ loolu am na ñooñu benn commentaire sax mënuñu koo dégg waxuma laaj na ngay àndal ñoom foofu yépp mooy tax li may wax waxtu ne ñun ñëpp nañu nattu ci suñ bopp ak dëggu akuk dëggal nit boo dikkee sa ñaari loxo ngir yàlla waaw wurta ànd ak déet ci as goro te li may wax nag ngor bëgg na ci réew mi lu yàgg te diine lislaam dugg fi ngor naka njëkk dañ koo xamoon kenn jàngaluñu ko ci suñuy deret la doon dox ak suñuy maam fii ci Sénégal te boobu diine lislaam dugg fi kon bis bii nga xam ne dañ fay daje ngir sant leen sunu borom sëriñ bi sun xel day dal na ci sun jot rafet na ci day rafet ci ni moom na mu bëgg woon kooku ko sant la yàlla defe nañ ko noonu nii ci lu ma nattalewut man lu ko ci yàlla delloo ni danañu làmb lu ñëpp ci lu ma nattaliwut te defewu ko ko it lu leer naa ñu fi man la kon sant rek lañ ci war a tof sant bu ñu delloo nag ku ci ne fa nga ne na nga gën a góorgóorlu ci sa pas-pas dëggu te dëggal te sellal te jëm yàlla rek a tax na ngeen góorgóorlu ci jàpp seeni wayjur te warmaal leen te jëm yàlla rek a tax ndax wayjur bu melul na mu war a mel kat sax du tax àq ji ji war ci see ci yow mu teggi ko la donte wayjur it am na xàq ci doomam buñ koy fàtte ak jenn demul wàcc morom ma ndax am na way juree dañuy defee ni kat suñ naan ngërëmal way jur ci seen bakkan ñoom way juree am na ñoom ci loolu lañ koy teg li nga xam ne am na borom kër yooyu seen ngërëm ci seen soxna ci seen bakkan dong lañ koy teg waaye ngërëm loolu suñ koy wax dafa war dëppoo ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala kenn ku ci nekk fu mu nekk na fa doon royukaay nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey ci maandu ci rafetal ci wattandiku tooñ tey jéggale ak tooñ te jëm yàlla rek a tax bu ñu bëggu tagg bu ñu ragalu ŋàññi lépp lu ñu ne na yàlla rek a tax nekk ca buñ ca bëgg wéet buñ ca ragale wéet buñ ca bëgg wéetal la ca toftoo it di sant ñëpp ci seeni jëf yu rafet ndax liggéey yi ñuy liggéey kat bu rafetee ànd bu rafet ak yitte ak pas-pas moo koy waral kon jëf yi yëpp noo ngi ciy sant kenn ku ci nekk noo ngi koy jot li ak cantam ñi am yéene jëf te suñ borom dogalut ñu man yàlla leen yàlla may kàttan ak tawféex yi ñu mën a jëf ñu yàlla dimbali ñu am te jëfit yàlla na leen yàlla gën a dolli te gën leen a xiir ci loolee ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam muy góor muy jigéen rawatina soxna yi ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm ak a ñaanal waxtaan wi mën naa gàtt leneen li ciy toftali ko rek mooy liggéey yu fi sunu kanam ñu xam ne nag biñ joxee suñu jëm ak suñu alal moomatuñu dara wax lu may xaar ndigal ak di nattali ndigal ne ca liggéey bii ñu doon jéemantu suñu borom dogal na mën nañoo wax ni yéwén na rattax na am nañ ndigal it bu nu yàlla may tal gi ak fekke gi benn fan ci weeru décembre ni ko alhaji Hassan kan mi waxee danañ ko ubbi insha allah ubbi te googu rek ci laa bëggoon a waxtaan man li ma ci jiital lépp sax day lay taay rek waaye wax fi lu ma waxutoon moom du ma yomb ci waxtaan te li jàll ci wax yi yëpp it ba tey moo ko gudd muy bis bu ma ñor nag muy fàttal mu biir bi ubbi gi ndax tur woowu dafa am lu ko indi xëy na jamono dana ci dikk ñu wax muy fattul mu biin waaye ku ku ku ko jàpp ci baat bi noonu it lu la ci sa xel joxe rafet na ci sa tawil muy fattul mu biin bis bi bi ma ko jàpp ñu di ko ubbi li ma weesu lépp damaa defee ni dama doon jéemantu waaye maa ngi door a bëgg a jóg jëm ci sant muy ubbite bis bii bu nu suñ borom may tal geeg fekk gi lépp loo xamante ni daanaa ko jëf di ko jéem mu di ko jaarale ci man moom yàlla man ci sama wàllu bopp day tàmbali naa koo waajal maa ngi digal képp koo xamante ni yaa ngi sukk jaayante wala nga di soppe nga waajale ma ko te def ko sa yitte muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw koo xam ne sama yitte sa yitte la sama bànneex sa bànneex la sama mbégte sa mbégte la te loolu dong ngay wër man ko dàq ci bis bii buñ ci yàlla mayee dal ngeen fekk ni te lu ci waaye fas te ànd ak yéene ju sell yàlla mën na la caa defal ak ubbi ko bu wér ci fànn bu mën a doon kon bépp jullit bu ko dégg wala ngay bindeef te yàlla dogal nga mën am kàttan ak taw tawféex man koo fekke si maa ngi rafet jot dayam rafet jot ci ni luñ ci fas ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem danañ defal tawféex ju kawe suñu jot kon nag nu bokk waajal ko nun ñëpp liggéey yi nag man nekkuma rek ci benn liggéey bu ngeen seetloo sax wóor na lii bañ ko tàmbalee léegi bari na liggéey yu fi sotti ci diggante bi ndax man saa soo ma gisee ma nekkal lee bu may xëy di dalaat ca leneen ba keroog may sàngoo suuf ci loolu laa fas yéene nekk du ma ci deltu gannaaw mukk te damay njëkkante ak sama dig ndax xaw ma kañ la xaw ma dañuy gont xaw ma damay xëy ba tax na lépp lu ma mën a jëmmal mu taw fay xele ma ko jàpp ndalal ma ko xiir ma ca du ma ko waaj dama cay daal di nekk rek mooy tax yeneen di liggéey ngi sunu kanam nii ko ëllëg ji waxee léegi nag liggéey lu sotti la ba noppi waaye lu ci sotti nii ñu gis ko suñuy gët lii ñëw du asaka yi li ñu gisagul lii ma lay wax rek jàpp leen ko te seen këyit yu weex tàll ngeen bi di def lii dikk du asaka yi lii ñëw lii ñu gisagul lii dikk du asaka lii du asaka yi lii dikk loolu nag lu man mi wax bu leen ma déglu dama koy wax ba tàyyi bu leen ma déglu waaye ki tax kàddu gi di génn ba ngeen koy dégg déglu leen kooku ki nu may ay gët ak kàttan ba ku ne toog fii mën a dégg mën a gis ci déggu kookee ci gisu kookee tax nuy yëg ak a dund déglu leen kookee ndax lu fi am kat mooma te lépp it moom la waaye man mii di wax yéen du ma ci dara bu ma nit dégloo mën naa juum lépp nag lu nuppi la comme taw fee xel nag nga ne ca biir yàlla na nu taw fee xel sax laa wax ñun ñëpp nu ne ci biir te kenn bañ ko ciy génn ci mbaaxam ak yërmandeem ak taw fee xel waaye liggéey yi mi ngi ci kanam bu ñu jógee fii it dañuy dalaat feneen bu foofu bu sas woowee jeexee ñu dalaat feneen ba keroog mu tànn ñu dëkkaale jeeg moom ñun fii bàyyi nekk ca loola ba bañ ñuy fekk si rek loolu rek mooy liggéey bi kon yitte ji daal mu ngi nii buñ ci yàlla yóbboo ak jàmm ak salaam di ci sant bokki taalibe bi yépp nag ci seen taxawaay li may faral di wax baa xawuñ di gis man may liggéey di ca soññ kenn bindu may leetar sasewuma doxuma ci loolu lépp waaye bari na ci ñoo xamante luñ la séen rek ñanaka ak yow boo leen woowee ak boo leen woowu ñanaka ak yow loolee nag ñun ñëpp foofu lañ war a nekk ndax sa kilifa moom foo gis mu ne fa rek foofa lu mu nekk rek loola ñor na ko jur xaar mu naan la nan dox ne ca fekk fekk si ko ca. kon ku ci ne taxawaay ba nga ci am yàlla na la yàlla taxaw adduna taxaw la alaxira taxaw la zahir taxaw la batin ci lu nëbbu it ak ci lu feeñ. di ci sant it alxaaji asankat bii ndax liggéey bi bari na ci loolu wóotu na ma ci lool mën naa maa wax ni bii nii fii nañu bari bu ma ko bu ci sama loxo féexee ba ma mën a nekk ca yeneen wuutu gi mu wut ci lii la te ba mu ñu ci wutee yàgg na lool daanaka bañ tollee ci foofu la France bi ba léegi mi ngi ci la ko jiitu bi ñu fi jógee di dem penku liggéey bu bari la bari la fi bàyyi bàyyi fii ni ne ko fu luñ soxla nañ ko daal di indi luñ soxla ci ciment luñ soxla ci fer noonu la koy taxawee loolu defaluma ko boppam la koy defal waaye defaale na ko bokki tali bi yëpp it donc ci sant te di ko ci ñaanal yàlla dolli ko te boole nu ko nun ñëpp ndax fii képp ku fi jëf lu baax ñëpp la ko defaaleel waaye fi mu ne li may faral di wax waxtu wu ne bu kenn diw mi am na nangam ma ngay def nangam nga nga nga bu donte junni la am yow bu xeeb sa dërëm de dërëm léeg-léeg mu wat junni ci yéene ji rekk la nekk kenn ku ci nekk fa nga toll dee fa jëfe te bul xeeb loola nit mën naa ak jëf milliard nit jëfut dërëm dërëm bi wat ko ndax amaana kii jëf dërëm bi kat su amoon milliard dana jëf dana jëf ñaa- ñaari milliard kon kenn ku ci nekk fa mu jëf fa mu fa fa mu toll dafay jëfe fexeel ba lu dikk nga def ca dara mu yóbbaaleel la booy déggee kat ñu naan Cheikh Isa kër sëriñ bi loolu fi ne lisaanul xaal la lisaanul xaal mooy mbaa doo fàtte Isa fu sëriñ bi jaar rek loola naan ko mbaa doo fàtte Isa mooy dafa bari yu mu indi ci kër sëriñ bi ak lu mu fi def ba fu sëriñ bi fu mu jaar gis lu Cheikh Isa def fu mu jaar rek gis lu Cheikh Isa def bu jaaree fii gis ni saal bii di Cheikh Isa ko fi def mu ngeen bii di Cheikh Isa ko fi def buntu bee di Cheikh Isa ko fi def néeg bee di Cheikh Isa ko fi def lal bee di Cheikh Isa ko fi def fu mu aw lisaanul xaal loolee ne ko mbaa doo fàtte ki jëf lii nun taalib yëpp foofu lañ war a nekk yàlla na yàlla dimbali te gën noo sàmm te gën noo aar nii ngeen nosee woon seen bopp it nekk wenn say alhaaji góor mi di jëwriñ ji alhaaji asan kan mii di seen coordinateur général na ngeen gën a waat boolewaat seen bopp jëwriñ yëpp gën a boolewaat seen bopp nekk benn ne ci seen gannaaw di xelalante boole seenu bëgg boole seenu bañ boole seen am-am boole seen doole boole seen jëmm boole seen i xalaat boole seen lépp ndax li ma waxee léegi kat liggéey moom lu yàlla sottal la ba noppi yàlla nañ bokk ca ñam koy sottale. kenn ku ci nekk lépp lu luy aajoom yàlla mi nga xamante ni dara tëwu ko yàlla ko ca defal lu kawe joxam kenn ko ci nekk lu mu ngóor yéene ko rek yàlla na ko yàlla tëbb aw fan ak wér ak kàttan ak tawfiq ba mu jëf ci lu kaw jortam noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp El Hadj Abdou maa ngi leen waroon a tontu sax ci seen siyaara waaye daanaka wax bi moom yóbbaale nañ ñëpp jëf yi matale na rafet na séeréer yi ndaw yi ñëpp seen xol sedd na guy lépp doy na lépp mat na sëkk bokki taalib bi yëpp noo ngi leen di sant góor jigéen mag ak ndaw di sant seeni waajur di sant seeni dëkkandoo di sant seeni soppe ndax lépp noo ko bokkale fu nu tool daal fedd li sunu laxasaay rek nit daal boo jógee jëm ci lu baax dangay woy te dëggu te sellal foo man di nekk nekk fa ambassadeeru sëriñ bi fu taalib bi murit nekk ambassadeur ambassadeur Serigne Touba rek nga fa war a nekk gannaaw loolu it xel koom ji mi ngi dikk nu waajal ko te bàyyi ko xel nañ ko daan bàyyee xel te def ci yitte ak pas-pas ak taxawaay bu mat sëkk gàmmu it mi ngi ñëw nu bàyyi ko xel it nañ ko daan dundale ca kër Mbay Fall ñu bokk daja fa dundal ko waa Tawfeexul Haadi nag ñaan nañ ne dañoo bëgg a def gàmm fa ñu nekk may naa leen ci ndigal su ko defee ñu mën di ko dundal foofee ca kër Serigne Touba ga googee ñu fa def ñu dajale ñu ñu di fa daje di ko fa dundal maa ngi leen ciy jox ndigal kon yaar yooyu it lu ci ne ñu bàyyi ko xel bu baax te def ci yitte ak pas-pas noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
asalaamaaleykum kon di leeral jotaay bi nga xamante ni moom la sunu mbokk yu baax yi joxoon digal ñoom ñi nekk bitim réew ñu nosewu comme ni ko mbokki taalibe yi nekkee fii biir Sénégal ñu am ñetti mbokki taalibe yu teewal waa Espagne waa Italie ak waa France bi ñu euh, defalee seen liggéey boobu ba mu àgg lim bi ñu fi indi mi ngi toll ci juróom benn million ak sept cent mille sëñ bi nag ci vision bu sori ak liggéeyal islam ni mu ko ñoree nee na lim boobu fi tàbb si ñeenti millions yi nañ ko dugal ci jumaa ju muy nësal fële ca kuunun ñaari millions yi ak cité cité Maoul Hayaat mi ngi nekk ca Kounoune sëñ bi dafa am yéene ñeenti millions yi mbokk yi jógee bitim réew indi mu tàmbalee ko liggéey boobu li ci toftalu mooy deux millions ak li ci topp nee na nañ ko def ay gàtt ngir waajalee ko bés bu tedd boobu ñuy jublu muy le premier décembre. deux millions ak euh, li ci toftalu loolu sëñ bi dani nañ ko fàggoo ay gàtt ngir waajalee ko bésu ubbite jumaa ji kon moom it wane na bu yoon ñun ñoo ci des kon nag nañu gën a laxasaayu gën a takku ngir ñaari sumb yu yu yu yees yooyu toftalu ca ya ko jiitu woon am yu war a toftalu ca gannaaw gi kon ñu xam ne liggéey yaa ngi fi du du du jeex kon képp ku bëgg a liggéeyal islaam rek kii baa ngi nii buntu baa ngi nii kon nañ ci gën a góorgóorlu ñu ngi sant bu baax sunu mbokk taalibe yi macha allah liggéey bi agsi na mbooloo bi yëpp ñu ngi koy rafetlu ci sama tur ak turu mbooloo bi yëpp ñu ngi leen di sant jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.
noo ngi leen di sant kon sëñ Amath sëñ saa si sëñ Maam Balla noo ngi sant jiw ya fa nekk di sëñ Abdoul Khadir sëñ Mor Cheikh Babacar Sy noo ngi leen di sant ak mbooleem ña ngeen àndal ñëpp liggéey bi yàlla na yàlla sunu borom nangu seen i jëf. te mot leen suñu yéene te sàmm leen te aar leen te taxaw leen te gën leen a benn la it jëf ji mo ñaar nit ak ñett fu nekk tawa yi luñ bëgg a jëmmal mën nañ koo jëmmal fii ne ñun ñii ne ci biir baas bi bu ñëwoon ku ne na def nangam te woy ci te sax ci lépp luñ song rek dañ koy daan daane nu rafet rafet rafet rafet kon ni ñuy soññante suñu biir ñun ñëpp nañ koy maase di ko bàyyi xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu amiin tabaaraka noo ngi yeesalaat nuyoo bi di ko jëmale ci bokki yëpp ak bokki jullit yi ñu bokkal dëkk ci gox bi yëpp rawatina bokki taalibe yi ñëpp nag am nañ ak cant aku ngërëm xëy na dana am ñooñ seen yitte day daal di bëgg a bari ba tax na danañ mën a yeewi mbooloo mi ci képp koo xamante am na yéen wëlbati ko danañ leen mën a yeewi te ñaanal leen yàlla teg leen ci yoonu jàmm ñi nga xam ne dañoo am yéene fanaan it Cheikh Abdoulahi Cissé ni ngeen daan def yéen kuréelu xaside yi ñu mën a fanaan ci tànt bi dundal guddi gi ñi nga xamante ni xëy na seen i te bari na te dañoo yore liggéey jàmbur wala dañoo war a xëy liggéey yi buñ defee yëfi séeréer rek am nañ njëgalul yeewee ko muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñi am yéene fanaan it ñu wëyal liggéey bi niñ ko doon doxale rek mooy ne ci cant gi rek waaye nag bis bi moom mat na sëkk te lépp it rafet na am nañ yaqin ci ne it nag inna laaha astara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna tax suñ jëmm lañ am ak suñu alal te lépp joxe nañ ko te jëmm yàlla rek a tax wuy si nañ lii tax wuy si gi mën a rafet it jëf nañ ko kon nag nañ am yaqin ci ne li ciy tukkee ci ngërëm ak tawfeex ak njëggal ak yërmande dees na ca teg suñu loxo ñoo ngi sant góor ñi ñoo ngi sant soxna yi cant gu matale di sant ñëpp di ñaan sunu borom may nu nu teewaat ko ay ati ati ati ati at te lépp ànd ak wér ak wérle ak mucc ak muccule ak mucc rafet suñu borom nag bokk nu dëgëral nun ñëpp ci siraatal mustaqima yàlla nu yàlla dëgëral ci siraatal mustaqima te dox suñu diggante ak saytaane ba fawwu te musal nu ci ndog ak pakk ak musiba ak balaa te saxal nu te rafetal saxin wi ba liggéey bii nga xamante ni noo ngi ko yéene di ko mébét suñ borom defal nu ci lu kawe kawe kawe suñu jot te loolu it suñu jot day rafet na ci suñu xel dal na ci ndax suñu yëg-yëg ci moom dal na ci ni lépp lu lu mu doon rek li nu war noonu mooy yéene ak tàmbali la ca des lépp moo koy sottal ci lu ma nattable wut nun li ñu war rek mooy bëgg ak tàmbali la ca des nag ci loxoom la nekk luñ ci tàmbali rek mooy sotti na ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam yàlla nañ ko bokk nun ñëpp di sumbandoo di yéeneenoo di tàmbaleenoo mu tawfeexal nu tawfeexi àggale ak ngërëmam loo xam ne meram du ca topp mukk te bokk nu defal mu rafet asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf